déjà Matam nga nekk. waaw nekk responsable politique. Euh, mhm. Matam mhm. Euh, lan nga xalaat. ci Abdoulaye Daouda Diallo côté boobu moom zone Fouta bi euh, c'est vrai que am na ay leaders yu bari yu fa nekk eh, Abdoulaye Daouda Diallo pourquoi pourquoi Abdoulaye Daouda Diallo waaw bàyyi ma ba pare <laughs> ah Abdoulaye mu ngi foofu Cheikh Omar Anne Mountaga c'est-à-dire am ngeen foofu ay leaders politiques yu mag yu fa nekk pourquoi Abdoulaye Daouda Diallo parce que Abdoulaye Daouda Diallo bokk na ci candidat yu nga xamante ni ñu ngi leen di dégg euh, lan nga xalaat ci moom justement non Abdoulaye Daouda il est de Podor oui je pas dans le Matam ensuite également. mais quand... si Fouta Fouta Fouta la ñuy wax donc. Euh, oui mais Fouta c'est pas une entité administrative c'est pas une circonscription. Ouais, mais, bon, mais, zone boobu la ñuy wax. <laughs> mais mais zone boobu. dañuy Fouta dañuy dañuy dañ naan Fouta titre foncier Macky Sall. waaw en tout cas dafay def tout en se basant sur les les différents les différentes têtes yu nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk ay Cheikh Oumar Anne Abdoulaye Daouda Diallo ay Mountaga Sy voilà. te waxu ci benn kenn benn leader bu dëkk Matam ci li ngay ñi ngay wax yëpp. kan ñi nga cité yëpp amu ci kenn ku dëkk. Ah dëkk Matam mais bon. ça c'est pas c'est ça c'est non je pense que euh, Abdoulaye Daouda je le connais bien tout comme je connais Amadou Ba. tout comme je connais Mambo Diaw parce que nous sommes de la même corporation je les connais bien c'est de très très bons bon profils qui ont fait leurs preuves tout autant aussi les autres hein, qui sont pas qu'on n'a qui sont des des camarades de parti qui sont également d'excellents profils qui moi je pense que peuvent euh, valablement défendre le projet le projet politique déjà déroulé par le président également mën a jublu ci orientation yu jëm ci li nga xamante ne daf ñuy may ndam ci deux mille deux mille vingt quatre je pense que ñoom ñëpp c'est de bons profils ñoo xamante ne mën nañ am yaakaar ci ñoom mais maintenant euh, li des moo di ne. Uh-huh. xam nga sa kilifa munoo munoo wax ne yaa ngi koy déglu ba pare nga bëgg koo jiitu. Mm-hmm. donc bu dee da nga koy déglu da koy déglu. à la fin kilifa yi kat ñi ko jiitu nag bari nañ. Mm. inspecteur ñi jiitu c'est leur choix. <laughs> c'est leur choix ku ne également ak euh, ak ni nga ko gisee ku ne mën na sañ naa wax ne man kii ma gënal waaye nag bu tànn gi jotee kilifa gi mooy tànn bu xasee ba tànn ñun ñu topp ci lii nga xamante ne euh, loolu la loolu la joxoon nga xamante ne ju jublu ci liggéey bi effectivement pour que 2024 mu doon lu nga xamante ne lu lu am loolu dina doon lu am solo. pour euh, pour la pour la coalition.